ñu nga wax ci euh, seere ko ci say collègue ak ñoo doon liggéeyal yëpp mu ngi ci yow dëgg yàlla équipe bi gars yi dañ koy jooytu loolu bëree baree bari ñu ne équipe bi ñu yóbbu tubaa fi mu nekk bàyyi na vide bu mag a mag a mag ci terrain bi waaye nag euh, nañ sant yàlla yaakaar naa ni euh, Touba day nekk laboratoire pour ñu rek système bi yëpp incha allah yaakaar naa ni li ñu fiy juddoo ëllëg na mën a jëriñ Sénégal yëpp kon euh, pour ñu dem ci clôture bi incha allahu taala comme ni ñu ko waxee rek dañuy jox euh, sëñ Ndiame Ndiaye mu xam ne mooy wax ci turu Cheikh. Euh, le maire monsieur le maire. bu defee paree ñu jox Amadou Ba bi Cheikh incha allahu taala bu defee mu jëlee kàddu ci turu ministre bi après ñu door a jox sëñ Isaka Mbacke mu ñaanal ñu tëj jotaay bi incha allahu taala kon sëñ Ndiame. mu am ñoo xam ne ñii. dénk nañ leen ko kon sëñ Ahmadou baax de moom la ñuy ko gërëm ci wàllu googu ndax sëñ bi teg na ko ci loxoom te taxaw na ci taxawaay yi nga xam ne nii ñëpp sedd nañ ko matal nañ ko yal na sa borom dolli ko moo tamit kàttan ci liggéey bi fu mu ko bëgg àggale mu àgg fa bi mu ko defee kon am na groupe yoo xam ne ñoo nekkoon di liggéey ci lii di ay borom xam-xam di ñu seq njàng mi ak képp koo xam ne jàpp nañ ne war ngaa mën a def dara loo xam ne lii day jëmale kanam njàng mi ci biir dëkk bi ak li ko wër loolu nag bi mu amee jëkk nañoo woote benn atelier boo xam ne bii dañ doon def validation technique lañ njëkk waxtaane ñoom boroom xam-xam yi bokk tënk programme bi ñu gaaral ko nit ñi ñu am ci ay observation yu ñu ci def ñu dellusiwaat tey ñëw di def validation institutionnelle bi loolu nag buñ ko waxee dañuy wax ne sëriñ bi lam mu doon deflu gannaaw ba nga xam ne boroom xam-xam yi taxaw nañ ci ba def ci lañ ci war a def il faut que état ñëw moom wane ci cachet kon loolu wane na ne wax dëgg yàlla sëñ bi teg nañu ci aw yoon ñun nag cant gi ci am mooy njàng daa mënta ñàkk ca gone yaa ngi jàng ci ci biir quartier yi classe de fortune bitti dëkk bi xale yaa ngi dem ñu ngi dikk ci ku jox sa joboot bàyyi ko mu xëy génn muy dem ci xamoo li muy def lan la wax dëgg yàlla sa xel dina dal du daal kon bu fekkee sëñ bi taxawal na lii nga xam ne ni ab programme la programme bi nag li ci ëpp di solo ci ñun mooy dañ ko dëkkal ci murit gi dëkkal ko ci lislaam bi dëkkal ko ci diine ji nga xam ne nii xale yi tey jii menace bi nga xam ne mi ngi nekk ci ñoom di jóge ci télévision bi di jóge ci mbedd mi di jóge ci adulte yoo xam ne xëy na duñu ay modèle tey ñu wutal leen modèle muy Serigne Touba te ñun ñëpp ñu bokk ko yaakaar defe naa ne loolu moom dal na sunu xel bu baax baax a baax kon li ñuy wax rek mooy ñun de wax dëgg yàlla programme bi ànd nañ ci liñ fi wax lépp rafetlu nañ ko gis nañ ne am na problème problème bu muy réglé ndax njàng mi ni ñu ko doon defee fii ci biir dëkk bi wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne bari ci sab néeg yor ay juróomi xale wala fukki xale ak ñaar xamuñu looy wax xamu looy def suñ demee ba nga xam ne lii teg nañ ko mu doon loo xam ne nag waajib la ci ñëpp ñu tënk ci dina sécuriser parent yi dina sécuriser élèves yi tey tamit dina dina dina ñu dimbale bu baax a baax a baax ci citoyen bi nga xam ne moom lañ soxla ëllëg mooy ab murit boo xam ne bii dafa complet lii mën nañ cee tënk suñu yaakaar bu baax a baax kon commune bi ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci tur suñu Abdou Lahad ci li nga xam ne nii amagum na fi ñu ngi ñaan sa borom àggale ko ci jàmm ci suñu kilifa yi sëñ saax ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax di siyaare ku baax ki nga xam ne mu leen fi yebal ak ñëpp ñi nga xam ne jël nañ ci baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa ne nag suñu inspecteurs yi nga xam ne ñoo fi fekk ci dëkk bi ñoom amal nañ leen mention spéciale moo xam muy français moo xam muy arabe parce que suñu borom fàttewuñ ci tubaarkàlla am na ci ñu bari ñoo xam ne nii maa ngi ko doon wax euh, xàmmee naa leen ci système bi ndax ci système bi ci laa bokk ci laa bokkoon ci laa bokk ba léegi donc ban loo xam ne xam naa ko fi kon nag ñu ngi leen sant di leen gërëm ci xam ne ñoom am nañ matière am na nag ay inquiétudes yu ñu fi wax yoo xam ne yaakaar na ni moom bu ñu demee ba interroger li nga xam ne moom lañ fi tëral pratique bi moom mooy moo moo ñuy mujj orienté waat ndax am na ay questionnement yoo xam ne yi plus demee ba teg système bi ñu valider ko ñu commencé ko doxal au fil du temps ñu def ay réglage yaakaar naa ne li Touba bëgg dinañ ko am ci tuba bu amee li mu bëgg ñun wër ñëpp dinañ ko am yàlla ko sax borom dañ jërëjëf alaykum wa rahmatullahi taala wa وبركاته Cheikh Ahmed sëñ Babacar yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekkal teewal éducation te nga jiite leen noo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mountakha ndokk nag bi ma fi teewee ba yëf yépp àgg ndax loolu dafa laaj ñaanu ñaanug Cheikh Mountakha bu wér ci yéen Cheikh ma Ahmad Badawi mi bi yëf yi tàmbalee ba tey moom la ko jox maa ngi lay xamal ne mi nga yeesal lépp lu nga xam ne joxoon na la ko mm-hmm. di sant nag mbooloo mi nga àndal ci liggéey bi di sant ñi nga xam ne itam mooy sëñ Babacar ñoom ñi eh, teew fi tey ak seen xam-xam seen compétence sëñ bi ngi leen di sant waaye loolu dara bettu ko ci ndax Cheikh Amadou Badawi mu doyloo doyloo ko ci lii lool mu nekk ca ca commencement ba baag si fii tey mu di ko gën di doyloo te waxtu ne day def loo xam ne nii doy googu day yokk kon nag Cheikh Ahmed Badari sëñ bi nee na bis bi mu ngi sant ñi nga xam ne ñoo ñoom nga woo te ngeen daje fi ginnaaw bu mu leen santee nag yéen ñi nga xam ne ñi ànd ak yow ci liggéey bi di dox di dox am agsi fii tey lii nga xam ne nag moo waral bis bi moom da ko ñor lool bàgg ci lool ndax mën nañ ne xalaatam bi nga xam ne moo indi lii lépp muy université bi ak li ci aju moo waral lii tey kon daje bi fi ñëpp daje moo tax te wax jiñ fi wax yépp lu amal njariñ université bi ëllëg jàpp naa ne dana amal njariñ Sénégal gépp kon nag moom ci boppam mun leen a ñàkk sant cant bu xam ne amatu àpp ndax moo tax ngeen ñëw fii tey moo tax ñu yabal leen fi waaye moo taxee ngeen sawar ci lool ba ñëw fi tey kon nag cant googu amatu àpp ñu leen di ñaanal itam kenn ku ne la nga nekk yàlla gën la ci ajox ndam ndam yu mat sëkk barkeb ki nga xam ne moo nu boole fii tey mooy Cheikh Ahmadul Khadim Cheikh Ahmadul Badawi Cheikh Muntaqa nee na lii nga xam ne moom lañu woote tey pour unifier mboolem programme yi mu nekk benn nee na loolu ànd na ci lool bàgg ci lool dégg na ko lool itam ñor na ko lool na nga xam ne nag bu ci am benn jaaxle ci eh, déglu gi nga xam ne kenn ñeneen ñi dinañ ci am geneen déglu ndax jàpp naa ne ñépp a koy dégg te ñëpp a koy joxe doxe Cheikh Mountakha nag li muy laabir lépp li muy baax lépp dëgg moom da ca du caaxaan du ko foye ba tax na lii tey bu ñu ko valide moom moo koy garantir ba nga xam ne kenn ku ne dana doxe ci yoon wii nga xam ne tëral nañ ko képp ku nga xam ne yaa ngi jàngale ci Touba danga ci eh, danga ci dëppoog da ci dox doxin bu dëppoog moom walla am njàngale moom du surtout ko tuddati ci yow noonu la ko Cheikh Mountakha gisee fii ci Touba lii ngeen proposé te nekk ca di ko étudier mu jaar ci yoon ba inspecteurs yi yëpp ñëw mu dëppook yoon bis buñ ko walidee dañ xam ne Cheikh Mountakha mooy garantir application bi ci ñëpp kon nag loolu na ci sa xel dal da nga xam ne bés bu ngeen ko defee ba dem ci moom la ca des ci moom lay aju yaakaar naa ne xaj na loolu dana laaj eh, espèce su comité de contrôle wala nuñ ko mën di tuddee commission bu nga xam ne xaj ne mooy yor loolu loolu itam la nga ca proposé sëñ bi dana ko ca nangu ba nga xam ne loolu danañ ko mën a def tatbiq ba nga xam ne dara du ca wàññiku ci ni mu war a nekkee ba nga xam ne lu ca wàññiku ñooñee danañ ko teel a gis ba nga xam ne la ca war ci matukaay danañ ko ci def di xamal nag ñi nga xam ne xaw ma nu muy demee ëllëg jàpp naa ne kenn du xalaat jaar ci wenn yoon wurut yoon wii nga xam ne moom lañ tëral yoon wi nga xam ne moom la mun Mountakha bëgg yoon wi nga xam ne mu yéen a ko jaar jaar ko ci xam-xam ba mu agsi fii ñu tëral ko pour Touba bu boobaa jàpp ma ne kenn waaye nag ku ko ca def it ëllëg moom nga ko séqal na ko ñépp xam ne lii ñor na ko ñor goo xam ne nii du ca bàyyi dara lu nga xam ne war naa am kon nag nangeen ngeen continuer ci lii ci yoon wii muy yoonu fas yéene comme ni ngeen ko waxee léegi yoonu xam-xam lay doon yoon woo xam ne ni itam du du du réeroo du du du du du wuute ak li nga xam ne mooy loi yi ak règlement yi nga xam ne réew mi def na ko te booba tey li ngeen fi wax loolu la confirmé nga ko ñi fi intervention intervenant yëpp confirmé nañ ko te loolu yaakaar naa ne muy am kon nag la cay des bu ngeen noppee mooy eh, appliqué ko loola bu leen ci ragal dara yaakaar naa ne ñëpp dinañ ko nangoo appliqué bakk ko ko ak appliqué kooka minorité bu néew lañu benn ay benn benn lay doon te booba ñoo Cheikh Mountakha ñoo koy séq na ngeen fexe rek ba am euh, ay contrôleur wala inspection ay inspecteur yu nga xam ne ñooy seet jàngukaay yépp ba nga xam ne norme yi nga xam ne bëgg ngeen ko ñu dëppook ñoom ba nga xam ne kenn du mën a jaar te itam jàpp naa ne nii rek moo nar a réglé dafa mel ne représentant maire bi wax na ko la Touba li fi nekk ci ay jàngukaay clandestin yàgg mën na ko tuddee fu ne daraa nga fa waaye loolu li ko waral mooy bëgg gi nit ñi bëgg jàng Touba dafa yéemu nit ñi bëgg jàng loo tax waxtu bi Cheikh Mountakha li xalaatam bi dafa dafa dafa dafa doy waar ndax Touba nit ñi dañoo bëgg jàng ba mu jaral leen lu ne jaral la leen ñuy dem fu yar na leen nga ci yoonu Mbàkke wa ña nga ci yoonu yoon wu ne ña nga ci fu nga xam ne école mën na faa dem wala ci biir dëkk bi ay école yoo xam ne aw tur la yoo xam ne seeni i borom dañuy fayu lu cher a cher waaye nit ñi bëgg jàng tax na mu jaral leen kon nag loolu nañ fexe ba ku bëgg a jàngaleeti fa ngay jàngalee ak la ngay jàngalee dëppoo lii nga xam ne wax ngeen ko fii tey tey te mën naa nekk ndax xam naa ne lu ci dem ci sëñ bi lu nga xam ne yéen xaj na mënu mënul am na lu tax mënu leen koo faj lu ci dem ci sëñ bi dana ko fajal bopp kon nag da ngeen mën a yaakaar naa ne eh, buñ demee ba àgg ba validation bi sotti yaakaar naa ne bañ jégle ko jàpp naa ne ñi nga xam ne eh, ñoo ci nekk ñëpp danañ dëppoog loolu donc itam bi nga jaaree ci yoon ba ñooñ daanaka ñu yor école yu am solo yëpp ci Touba bokk ci programme bi àndoon ceeg yéen ngeen ànd ak ñoom ci loolu ba nga xam ne ñoom ñëpp ci ànd kon ña cay des xaj na mooy ñi nga xam ne ay benn benn yu nga xam ne ñi ngi tuddee seen bopp seen seen seen bopp ay ay ay jàngalekat wala ay école te eh, seen bopp rek tax ñu def ko daanaka ña ñuy jàngal lu dul la fay intéressé wu leen ci loolu nag da ngeen fexe ba duutu am te yoon wi mooy yoon wi nga xam ne itam duutu am kon na ngeen xam ne sëñ bi ànd naag ànd ak yéen ci lii ànd gu mat sëkk na mu àndee woon ci yéen mbooleem ba mu ko tàmbalee te jox la kilifteef gi nga di ko saytu bënn nëga lépp fépp foo jaar xamal ko ko mu ànd ca ba nëga lii itam noonu la ca àndeeg yow. kon kay li ciy des rek mooy danga fexe ba buñ koy def tatbiq incha allah ñu am ay moyens yuñ ko saytoo ba kenn ku ne dana mën a jaar fam mu war a jaar kenn ku ne dana mën a def dëppoo ak programme bi nga xam ne mooy programme Touba ci njàng mi incha allah eh, yoon la wu nga xam ne buñ ce buñ ko buñ ko defee ku ne jàpp nañ ne njàng ci Touba dana def développement bu rëy bu am solo boo xam ne nii comme na ma daan wax bu njëkk jàpp naa ne royukaay lay doon yoo xam ne nii ndax ñëpp bëgg Sénégal gépp jullit yëpp bëgg seen doom xam seen diine seen doom xam alquran xam seen diine kon kay buñ gisee foo xam ne nii ña ngi fay jàngale leen yàqal seen programme bañ daan jàng dara kenn ku ne yaa ne siiw ndax ñëpp Sénégal yëpp ko bëgg jullit yëpp bëgg loolu kon nag yoon la wu nga xam ne yaakaar naa ne bu continuer bañ eh, bañ wone ko bu wér jàpp naa ne Sénégal gépp dinañ ci réew boobaa jàpp naa ne état bi dina ci ànd ak yéen ci Sénégal gépp ba nga xam ne mooy yoon ndax mooy lii mooy demande bu mag bi nit ñi loolu lañ bëgg kenn ku ne jullit bu ne comme ni ma ko waxee léegi bëgg na sa doom xam alxuraan sa doom xam sa di xam diineem sa doom yar yarub diine ñëpp a ko bëgg kon lii tey exemple lay doon pour Sénégal gépp daanaa ko wax ne jàpp naa ne pour Afrique islamiste gépp lay doon Afrique islaam gi nga xam ne mooy mooy suñu eh, eh, dendandoo yi nga xam ne dañooy julli nu bokki aada yaakaar naa ne bu boobaa ñëpp a ciy roy <coughs> ndax dana dem ba nga xam ne Sénégal gépp kenn ku ne da ko bëggal sa doom am éducation bu toll nii kon nag loolu ab liggéey la bu wër a wër la bu nga xam ne ñu dellu siwaat ci Cheikh Mountakha la ko yàlla jagleel ci liggéey sëñ Tuubaa bi muy lu jëm ci e, njàng ñëpp a ngi ci woon boobaak léegi waaye njàngin wu kawe wii ak niñ ko organiser ak nim dara nekk exemple ci Sénégal loolu mi ngi doog a am kon nag te loolu bu amee nii muy amee tàmbalee ko ci ñi koy organiser la te yow la kon nag ak cant gi mënut te ñàkk ñekk yow ak ñi ngi àndaloon liggéey bi booba tey te waxtu ne ngeen di ko def defin bu rafet rafet defin woo xam ne definu digal la ndax amu ci dara lu ngeen di def looy def te jiitaloo Cheikh Mountakha xam ko ba joxe ca xalaatam ba joxe ci abeem ba joxe la ci ndigal kon nag bu agsee tey fii ba nga xam ne daanaka tàmbali rek a ci des kon alhamdulilah am nga cantam bu baax a baax kon nag mi ngi yeesal lépp lu nga xam ne wóolu na ko xalaatoon na ko ba jàpp ko ci yow ba tax mu dénk la lii loola kon day yokk lool lii tey gën na koo yokk ndax gën naa boole xeeti njàngiin yi nga xam ne am na Touba yëpp incha allah dana leen gën a boole ba mu nekk benn ba nga xam ne ñooy ñooy bokk daanaka lu ñuy jàng te loolu dafa am solo loolu loolu lu manqué woon la ndax naka jekk programme yi kenn ku nekk sa programme ba nga loolu nag kon def benn programme bu mel nii boo xam ne nii kenn ku ne da ciy tënku muy lu leen amal njariñ mën na cee tënku ba kenn ku ne mën a dem université ëllëgi si biir nga xam langue yëpp ba nga xam ne université bu la neex ci àdduna da nga fa dem loolu réew la bu nga xam ne yaakaar naa ne kenn ku ne bëggoon na ko am Tuubaa koy am incha allah kon nag loolu ci seen taxawaay la kon nag yeesal cant gi ci ñi nga xam ne waaye éducation nationale yi nga invité te ñëwee nii ñu ñëwee ku leen déglu xam ne ñoom ñëpp boroomi xam-xam lañ loolu tax baatu professionnel ma jëfandikoo ko woon sànq bi may wax ci sama turu bopp ku leen ku dégg seen i wax xam ne nii li ñuy wax xam nañ ko dañ koo dund am ca expérience ñoo ngeen àndal ci lii kon nag ñëpp jàpp nañ ne lii du am échec incha allah kon nag noo yeesal cant gi ñëpp ñu fi xam ne teew nañ fi tey di ko gën a yeesal ci yow loolu cantuk Cheikh Mountakha la ñii nga xam ne ñëw nañ fa itam ñu yeesal cantuk Cheikh Mountakha ci ñoom ñu ngi leen di gërëm tànk yi ngeen ngeen dox def ko priorité junj nga léegi léegi sëñ Babacar eh, ne seen seen seen seen absence foofa daanaka vide la ndax soxla guñ leen fa soxla waaye loolu lépp ngeen def li priorité ba tax ngeen ñëw kon nag yàlla leen yàlla fay tànk yi. na leen yàlla taxaw يلا يلا أجله يني شيخ منتخاجي بسنغال جب من تيجرنيو بأفريق جب من تيجرو والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله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 ñoo ngi di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te di jël nuyoo suñu ministre Cheikh omar an di ko teg ci loxo Cheikh isaaq ngir mu tegal ñu ko ci loxo ku tedd ka Serigne Muntaka Mom dafa bëggoon a ñëw waaye dogal mu am empêchement ki topp ci moom tam di soxna Xadijatu job Mbooj yàlla dogal mu voyager waxoon naa ko léegi bi may tàmbali mais ñoom ñaar kenn ku ci nekk amoon nga yéene teew ci jataay bii ndax euh, yéene ju ñu am ci Touba ak njàngum Touba yitteel leen euh, moo taxit yaakaar naa ni xaw naa feeñ ci délégation bi ni ko sëñ Isaac waxoon léegi euh, xam ngeen ni man maa ngi bëgg a yàgg ministère mais ministre le fait que mu désigner trois directions da ngeen dem foofu teewal ma fa bariwul lu muy am dafa ni inspection des daara nañu dem division enseignement arabe nañu dem division enseignement privé nañu dem te li tax mu def loolu ñun am na lu ñu ci yaakaar mooy bu ñu fi jógee fexe ba problème bu posé wu ñu xam yan direction la concerné ak ban taxawaay lañ ci taxaw ba ba mu saafaraw kon loolu li muy wane rek mooy wane ni yitte ju ministre bi jox Touba ak yitte ju mu am ci ngir njàng mi jëm kanam muy liñ ko dénk waxoon naa léegi ni bi mu ñëweek léegi yàggul mais am na ñaari jataay yu ma toog mu wane ni am na yéene ngir liggéey ci daara yi ak njàngum lislaami Sénégal am na yeneen ci tax yoo xam ma ko waaye nekk lañ ma ko ni war ngaa góorgóorlu parce que ministre nee na président de la république euh, lettre de mission bi mu ko jox bokk na ci na nga yittewoo daara yi ak njàngum lislaam mi ci Sénégal kon loolu li ñu wane rek mooy muy président de la république muy ministre de mu muy Cheikh Omar Anne kenn ku nekk am nga yéene ngir taxaw jàppale njàngum arxuraan mi Sénégal ak njàngum diinam jëm ci kanam parce que loolu dafay cadré wu wala dafay bokk ci li nga xam ne sasu réew mi état bi la kenn ku ne xam ne ne éducation mission régalienne bu état la bañ ko ba Sénégal dañu def droit ci constitution bi droit à l' ñëpp war a jàng dafa am obligation scolaire de 10 yoo xamante ne nii dañu war a jàngal bépp doomu Sénégal te njàng moom ñu ko war a jàngal kenn waru koo ga kenn am kenn waru koo imposer kenn kenn ku nekk yaay xool la nga bëgg a jàng

pour tabax un bon citoyen yu bokk ko mais kenn ku nek par rapport ak sa spécificités nga fexé ba jël en charge say préoccupations am te ni moy tax yow nga nek yëg sa bopp ci biir système bi. yaakaar lolu légui léegi la ko IEF doon junj ci li ñuy tuddee académisation fexé ba région bu nek ñu jël ses spécificités transformer ko en programme fexé ba yar ci seen i xale ñu ëlëk ñu mëna a tekki ëlëk ñu mëna dem fa xam ni ñoo jallalé message bobu ñoo jallalé bobu patrimoine culturel. yakarna ni ni da fay cadré bu baax baax li wax rek.

loolu répété waat ci Aziz yi wax dëgg yàlla euh, ba jamono yi passé maa ngi fàttaliku ji vers des années 2017 2018 bi bi ma ànd ak sëñ Baytaam ñëw fii ci benn mission ñu visité daara yi fi nekk visité école Elzar yi fi nekk bi ñu toogee dañu nañ mettre en place benn groupe de travail pour ñu xool naka la ñuy liggéeyee jàppale waa Touba ci wàllu jàng ak jàngale yaakaar naa loolu pour wax ni yàgg naa nekk ittey ministère bi ñu ci liggéey te nag daf fee fekk itam yitte jooju ci biir Touba fekk fi yéen jooju ci biir Touba yaakaar naa ne képp kuy xool Matlabul fawzain di nga xam ni borom la mu bëgg mooy jàng ak jàngal tegu ci njub képp kuy xool ay bindam ci téere yu dul jeex xam na ni jàng ak yitte yittey jàngale ak tegu ci njub moo ko yitteel. léegi la ko cheikh bi wax te mooy du ma développé ci programme bi waaye li mu waxoon léegi Cheikh Issa wax na ko Cheikh Ahmad Badi wax na ko te mooy isabtadal muridu bi tawxidi wal fiqhi ma at tasawufi al majidi منتهجا منهج أهل السنة مع الجماعة نجا من فتنة إذ ظلمات بدعة اعتقاد تكف عن اتباع عن أنوار الهادي ما نيت كي كين مونكو تباخ تي باي باس باسام غيناو نيت كي كين مونكو تباخ تي باي كولتور كولتورام غيناو باسكو لي واخ انيفرساليتي نيون كوي كومونسي سي لوكاليتي مانام لي غي الخصوصيات المحليه ترتفع الى المشترك العام képp ku bàyyi sa culture bàyyi sa diine bàyyi sa passeport da ngay réer te nag mondialisation bi wane na lu bare bare bare bëri te yaakaar naa ni ku préparé wul ak réseaux sociaux yi boo defu nànk di nga réer sa njaboot da nga yar réer yaakaar naa ni loolu wane ni war nañu bàyyi xel baax a baax suñu pas-pas bàyyi baax a baax suñu diine xam ni lii moom moo ñuy aar di ñu di ñu di ñu musal ci agression culturelle bi am. li tax ma ne fi euh, li yàgg na fi pas-pas bi ak yéene ji ak projet bi yàgg na fi. yàlla dogal mu antu ci loxoy Cheikh al Muntaka yàlla ko yàlla yok fanam te wéral ko man ma ngi fàttaliku vers les années 2010 ci magal gi amna ben benn table mag bu ñu Cheikh Sam ci quelle offre éducative pour Touba. ma ngi fàttaliku boobu Cheikh Amadou Rahman Cheikh Mbacke abdou rahman mais defoon na ci ci dara moderne yi Omar Ndiaye lancé iya bu Diourbel defoon na ci ci ci ci franc ci ci classique offre classique Moussa Fall suñu xarit defoon na ci ben ben présentation ci franco arabe pour wone ni depuis 2010 ko jiitu la wax ci li feeñ.

xam nañu seen sérieux moo tax may wax léegi ni bi ñu jógee ci système bi bàyyi nañ fi du mag a mag parce que kenn ku nekk gox ba nga nekkoon yaa ngi fa def liggéey nekk Thiès wax dëgg yàlla yamul mu nekk IAM daan intervenir ci CRFP ba di intervenir ci IEF yi di intervenir ci région bi fépp fu nekk mu jàppalañ ci liggéey bi pour a a baax mën naa ko wax ci Abdoulahat mën naa ko wax ci euh, nga wane fii mooy ji nga wane fépp nekk Sénégal ngir wone ni ñu nga rafetlu liggéey bu baax a baax liggéey bi waxoon naa ko léegi may commencé liggéey bu xam-xame la liggéey bu tegu fu wóor la te yaakaar na état bi foofu la jëm moo tax ma ne Touba mën nañu ko considérer comme laboratoire incha allahu taala dinañ liñ fi gis dañuy def rapport comme ni ko cheikh bi waxee léegi compte rendu bu dëgër def ay proposition même jox ko kilifa gi rendre compte l'autorité bu ko defee incha allah dina instruire ñu mu war a instruire moo xam IJEF la ci rapport be contenu ñu boole ko yóbbu ko ñu def rapport mu nekk validation moom teen ni incha allahu taala yaakaar naa li ñu bëgg lépp nañ ko ci am kon ñun loolu mooy suñu cër ci jataay bi vraiment fekkee nañu ko rafetlu nañ ko kontaan nañ ci ànd nañ ci bëgg nañ ci te dañ def kontaan ministre bi moom mooy autorité bi incha allahu taala te yaakaar naa dina leen woo balaa yàgg parce que mi ngi waaj a ñëw Touba wax na ma ko waxoon naa ko may commencé nee na ma préparé ma euh, benn proposé benn date pour ñu ànd dem Touba pour mu jàkka saafante kilifa yi nemmi ñoom bu ko defee euh, ñu xool naka lañ leen di jàppale ci wàllu liggéey boobu maa ngi jéggalu ci guddal yi ak kàddu yi en tout cas daal li ñu wax mooy kontaan nañu bu baax a baax li ñu fi gis dal na suñu xel kontaan nañu bu baax a baax li ñu fi gis dal suñu xel parce que ay axlaam yu yàgg la si ñun yaakaar naa képp ku xam te nii xam nga islam xam ni muy tabaxee nit lu mel nii boo gisee doo mën lu dul lu dul kontaan souvent bi ma daan nekk ci classe yi jàngale dama daan fàttali sama élèves yi lettre bi Ahmad Al Amin bi ñu doon doom ji nekkoon États-Unis di jàng di ko wax ni ko sama doom انك خلقت انسانا ذا جسد وعقل والروح دنج دا بند ام خل ام روح ام آه، يرم مونيكو سا يرم بي لك اك نان موكاي دوندال سا خل مي جانغ اك گستو موكاي دوندال وايي سا روح دي خم اك جامو رك موكو ما دوندال غير واني ني ات ان نيت ملتي ديماشونيل بو ساغني رك مصيبه kon yaakaar naa ne loolu la ñu góorgóorlu suñu système yi ñu fexe ba amélioré ko ba jël toutes les dimensions de fekk mën ko yeg orienté ko mu nekk njëriñu àdduna ak àlaxira kon maa ngi jégalu baax baax baax ci kàddu yi di sant baax di gërëm Cheikh Isaaxa ñoo ngi bëgg baax ci jataay bi ak si teewaay bi ak proposition yi nga def xam naa loolu ni ko Cheikhuna Abdoul Wahab waxee loolu la euh, jógee na fi mu war a jógee waaye incha allah ñun rêve bu mag la ci ministère bi xam nañ bu ñu ko defee dinañu gën a booster baax a baax suñu liggéey biir Touba euh, Cheikh Amadou Badawi maa ngi sant di gërëm yaakaar naa ni li ñu daje lépp ñaare ci yittey sëñ bi la nekk li ñu daje lépp ci yittey sëñ bi la nekk daje naa ak moom ministère lu baree bari benn mu jóge enseignement supérieur wala mu jóge éducation nationale te lépp bi ñu mujjee daje ñoo ngi mujjee daje ci bureau ministre tàlla mu nekk ci yitte woo xam te ni sëriñ bi ko sasoon ngir loolu kon yaakaar naa ni liggéey bi ñu la sas euh, yaa ngi ci mbàkk yàlla yàlla kattanal dooleel la ba liñ ci yéen yëpp yàlla def ko kon salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ورغبتي عن سوي العصيان في البشر خالو سفي لتفيدي إلى ملكي أمري عن الكون في صف وفي كدري خالو سفي لحبي خالقي ملكي ولم أكن للبرايا أستكي ضرري قالوا سبيء لكوني لم أقف أحدا وما رجوت